adultère dañuy daganal am jëkkër am far di daganal am jabar ba pare di def vagabondage sexuel jox nañ ko preuve yëpp jox ko ay preuve itam bu wane ni yemuñu ci ñaawteef yooyu ci wàllu sëy waaye dañ ci boole di tooñ ci wàllu diine joxe atteem atte bi nag ñetti ponk la benn bi dañ dañ leen dànkaafu ñoom producteur u infidèle ak euh, support de diffusion bi pour que épisode yi ñi def ñu effacé mboolem ñaawteef yi nga xam ne moom française yi def nañ leen obligation léegi ñu yokk ci écran bi le pictogramme de limitation d'âge au bas de l'écran à gauche ou à droite on interdit au moins deux léegi nag ñàkk sàmmonte ak dànkaafu yooyu CNRA nee na li mu leen di dikkal mooy ay daan mooy daan ji fi amoon rek ak euh, canal Horizon ci seen film pornographique boobu ñuy wax confession érotique daan bi mooy dañu arrêté série bi fëgg leen amende de ñetti millions mooy daan yi tegu woon ci loosu ji rek ak euh, production boobu ñuy wax business du sexe dañ ko arrêté ba pare fëgg leen amende de cinq millions. voilà kon na nga jàpp ne euh, infidèles dañu nekk en sursis actuellement alors ñun ñi nga xam ne nag ñooy les plaignants ñi ngi war a tenir benn réunion dañuy xaar sëñ Bassirou Mbacké Cheikh Astou Fall jóge Touba bu ñëwee rek ñu def réunion d'évaluation boo xam ne euh, dinañ leen a jébbal. la déclaration yéen ëttu yëglekaay yi incha allah. waaw plant boobu kan lañ ko adressé woon directement producteur bi wala kan. non plainte doo ko jox ki ngay plainte xam nga sàcc bu ñëwee sàcc la wala def ko ci ñaawteef def ñaawteef doo def plainte ba pare jox ko ko. déedéet da ngay dem ci àttekat ba. maanaam ki ñu bindu turam ci plainte bi ki ñu ko adressé. Euh, série bi dañu porté plainte contre la série xam nga série bi dafa am borom. Mm-hmm. even prod moo entendre leen. waaye nag joxe na atte atte bi mooy dànkaafu yooyu ma lay wax. waaye sorti bi nga xamante ne producteur bi defoon na ko moom li mu doon wax mooy que ni sénégalais yi ñoom ñoo bëgg genre série yooyu parce que fii boobu moo boo fi defee lu baax nekkul loo xamante ne moom la ñuy seetaan chaque jour mais genre yu ni mel moom la sénégalais yi bëgg moo tax ñu leen koy defaral. fi mu ne bu sénégalais yi bëggoon yàmba ngay jaaykatu yàmba nga ne ah bu ma ko bëgg logique bi ñu wax noonu buñ ko toppee fu ñu jëm. kon nag moom bu ne d'abord Sénégalais ñoo bëgg lu bon ñoo bëgg njaaloo ñoo bëgg ñu leen di wax affaire góor jigéen nga bëgg ne rek kom que ñoo ko bëgg danaa leen ko jox ah, loolu loolu lay boobu dëgërul de Seydina Mohamed dafa ne ñaawteef nga bañ koo def moo gën waaye bu fekkee dem na ba mënu la ñàkk mënu ñàkk bul ko siiwal bul ko tasaare na yem ca yow tëjul tëjul seen nekk def sa yu bon da nga bàyyi Sénégalais yi ñuy góorgóorlu di sellal loolu rek la léegi ñenn ci artistes yi ñenn ci artistes yi ñoom euh, jàpp nañ ni euh, booy jouer film wala ngay jouer loo xamante ni danga ko bëgg dañ cee war a dem ba mu jeex tàkk maanaam cinématographie moom moo laaj ngay jël ay risques. ah waaw du euh, ay cinéastes yu fi ràññeeku yu digne yu noble def nañ fi ay jaloor yu rëy te demuñu ba jeex ci ñaawteef ak ci lu mbot je prends le cas de Ousmane Sembène jox nañ ko Asra festival de Carthage festival de Nangam c'est le cas de Moussa Sène Absa euh, ba kii pardon Djibril Diop Mame Beyti c'est le cas de Cheikh Tidiane Diop bu Daaray Kocc Cheikh Tidiane yar na xale yi bi ma ci gën a impressionné mooy série boobu mu def na xam ne affaire u drogue musiba bi muy def ci dëkk xale yu bari fa la ñuy jógee biñ ko seetaanee jéppi seen bopp jëli ci jom ba bàyyi jox yàmba voilà une série qui a réussi ses objectifs waaye série boo xam ne day tax nga gën a ñàkk a jom c'est une série a échoué. est-ce que mën nañoo est-ce que mën nañoo comparer jamono ji théâtre ak cinématographie. ah. est-ce que jamono ji mën nañoo comparer théâtre ak cinématographie. non li ma lay wax euh, sànq euh, Cheikh Tidiane Diop théâtre la. ñi mën a jëkk fii te Ousmane Socé Ousmane Sembène nag Djibril Diop Mambéty yooyu c'est des cinéastes. mi Cheikh Tidiane Diop bii nga xam ne jàlloore bu ne am na ko ci def lu yiw ak lu baax ak génn jikko yu rafet yi fi mag ñi bay xale yi di ji roy euh, kooku kii la c' est un cinéaste de téléfilm de télévision RTS la nekkoon waaye ñii du ñu def loolu dañuy génn li gën a yées ci jikko doomu aadama xale yi di ji roy da ngay xool ndaw si nga xam ne vagabondage sexuel la dëkke xale yi dañ ko faanle indi ko jël comme référence série bu def loolu yaa ngi yàq jikko yi te kooku kenn du ko seetaan waaw ba tey ci biir série boobu gis nañ ci ay jigéen yoo xamante ni dañoo am jëkkër mais dañuy dem di wëri beneen góor boo xamante ni nekkul seen boroom kër mu bokk ci jig yaakaar naa ni bokk na ci point yi gën a yokk tax ngeen euh, amal lutte bi contre série infidèle ndax gis nañu ni ñuy comporté woo sol gi ñuy sol ak ni ñuy provoqué yeneen góor yi. waaw non seulement ni ñuy provoqué yeneen góor yi mais kàddu yi ñaaw ak pornographie verbale bi ci looloo tax parce te doo def lu bon te doo xiir nit ki ci lu bon da ngay xeex lu bon ci kaw nga indi lu baax mu taaru lool ba lu bon li kenn du ko bëgg sax xool éducateur dëgg ku am pédagogie noonu ngay def jëmm yu tedd yi tëdd Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène famille Omarienne ah Cheikh Ahmadou Bamba Seydi Hadji Malick Sy Baye Lass Baye Niass Baye yàlla nee na xaala rasulullah yonent bi nen wala boog nga teg affaire diine fële nga jël valeur yi fi mag ñi baax baax ñi bay di jom di gers di sutura noonu lañ daan éduqué si yow sa papa sama papa sa maam sama maam ak ñeneen ñi ñuy yëpp valeur yooyu mooy watatu di watatu ba ñëw ba ci ñun moo tax ñun nag euh, ñu jomba def lu bon jomba def lu ñaaw jomba wax lu ñaaw loolooy éducation waaye yow doo seet la bëgg a combattre génne ko di ko màggal di ko taaral di def promotion góor jigéen di def promotion njaaloo di def promotion am jëkkër am fara yaa ngi tooñ yaa ngi yàq di wasaare loo xam ne war bu ko dina bu ko série bu def loolu rek yaa ngi nax sa bopp ndax nombre de filles yi nga am déedéet de filles yi yi bëgg nañ ñi ngay def de ana ci euh, léeg-léeg yi tuddee euh, lan moo leen ëpp ay fii téeméeri junni waaye tekkiwul ne sénégalais yi am nañu ci saaga ndey ñu muy saaga ce n'est pas un critère de réussite la négativité nga am ay vues tekkiwul ne critère de réussite la c'est que y a la curiosité humaine boo ko additionné alors ça fait un certain nombre de vues ku nekk da ngay mariés ñu leen doon ci xeex mais fii quarante huit co-signataires de la plainte ay kilifa diine xoolal lu day ni jarbaatu sëñ Muntaxa euh, euh, Basiru xalif général des Mourides jarbaatu lenteen ci sëñ Basiru Mbàkke Cheikh Astou donc Touba la tollu woote mbaa déposé wu leen plainte bi ma ne ko déposé guñ ko mu ne bu ko déposé interdire le si signataire yi la bokk côté Tivaouane am na ay muxadam yu mag yu demee nii euh, Alaaji euh, Aliou Dia président ONG Daaral Quran wal Ihsan ci muxadam yi ba tey am na sa naataango bu ñu moom euh, Mamour Fall président de la convention nationale des jeunes Tidjane si signataire yi la bokk quarante-huit signataire ça veut dire lii ñuy def ñoom kenn bëggu ko kenn ànd si voilà kon nag léegi CNRA àtte léegi nag on a deux commissions de visionnage benn bi Jamra moo ko monté benn bi CNRA pour observer ba xam engagement yi ñuy jël ne dinañu dindi ñaawteef yëpp ci seen film bi pour xool ndax dinañ ko respecté buñ ko respecté wul ñu ni ñi daan dal seen kaw ni mu dalee ci kaw euh, télévision yi ma la si jël sànq sama njaal benn wax waa est-ce que du drapeau drapeau borom ñaari tour yi ñu gis ci biir film bi euh, ku tudd Soxna jaaro yor ko est-ce du loolu moom moo leen gën a poussé ngeen jëm ngir xeex loole non non euh, confession érotique bu Canal Horizon te ñu daan leen coupé euh, kii bi diffusion bi amul drapeau borom ñaari tur ba kawteef bu seen TV te ñu daan leen CNRA jox mu dëgg arrêté série bi amul drapeau borom ñaari tur le business du sexe bu Walfadjri yi nga xam ne arrêté nañ ko ba pare dóor leen allemande cinq millions amul drapeau borom ñaari tur kon infidèle drapeau borom ñaari tur yi dafa ñëw gën a xajamal ñaaw ñaawteef yi rek waaye ñun euh, dérive audiovisuelle de manière globale la ñuy xeex waaw luy luy luy jaar ci télé yi te yàq jikko yi di nappaaje suñuy valeur ñun loolu la ñuy xeex bu ci borom ñaari tur euh, nekkee itam ñu ànd a xeex ko rek parce que am na série bu ñuy wax réew leen ba leen tam déposé nañ ko day def carrément promotion góor jigéen ndax ay acteurs yi joué ay rôle góor jigéen la. mais décision bi nga xamante ne CNRA daal dina koy jël est-ce que euh, dina changer dara ci impact bi parce que buñ koy teg 22h30 te xale yi yor seen téléphone di dugg YouTube di ko seetaan euh, loolu tamit est-ce que changement bu rëy am na ci. changement bu rëy am na. parce que affaire heure bi c'est secondaire ñoom dañu ne génn leen ci série bi ngeen ko dindi ko ñoddi ko njaaloo yi ci am jigéen bu am jëkkër am far bi ci am. la pornographie verbale bi ci am donc boo génnee yu ñaaw yi bu yeboo sax nga dawal ko huit heures wala six heures mm-hmm. na yu bon ak yu ñaaw yi génn rek ñun loolu mooy suñu gisee moo tax commission de visionnage yi ñu ngi ubbi seen bët di xool bu ñu juumee ba jàll séquence une seconde ñaawteef njaaloo ak promotion de l'adultère l'apologie de la fornication immédiatement euh, daan boobu CNRA wax dal seen kaw l'arrêt de la série et amende financière kon pour ñun heure bi amul solo na yu bon yi génn rek ñu segg ko ba mu set mhm. te ñoom nee nañu dinañ ko tàmbali suba incha allah. est-ce que ndam bi ngeen am euh, ci infidèle amoon ngeen ko ci maîtresse d'un homme marié. waaw amoon nañ ko parce que maîtresse yi may waxee yow ñoom dañu nekk a sursis ñoom itam sursis mooy la Jamra signalé woon bu ñu ko defaatee rek ñoo arrêté série bi CNRA jël tamit euh, amende financière teg seen kaw ñoom ñoo la ko gën a xam lettre baa ngeeg ñoom daf na ni sàcc bu ñuy jàpp rek. médecin yi daal di ne euh, euh, juge dafa am circonstance atténuante voilà sàcc boobu il est en sursis c'est-à-dire lañ ko tuumaal bu ko defaatee rek daan yi code pénal wax ci sàcc ñu teg ko ko nag waaw maître d'un homme marié dafa nekk en sursis moom tam jox nañ ko mise en demeure maa ngi bi. Euh, ñoom waa infidèle euh, nee ñu début bi la ñu nekk dafa am lu ñu bëggoon a jàngale ci seen premier épisode yi mais après euh, dañoo nar a changer contexte wala ñu def ko beneen tournure mais début bi benn jàngat bu ñu doon tàmbalee la. waaye kenn du jàngale noonu parce que at dama la jox exemple bu dee dix épisode la bu ci gën a ñaaw bu ci gën a ñàkkee teggin sa morom nga ne bii yow nga ne ca onzième épisode ba nag ci laay def conclusion bi pour que ñu doon def lu am lu bon ñu doon def lu baax am lu baax mm-hmm. waaye en général. ñu bari bu ñu seetaanee deux épisodes wala trois rek daal di daw wàcce la fa ndax ñaaw teef ndax choc bi nga leen di choqué si seen sensibilité nga daal di perte ñu bari daal di perte wàcc en cours de route loolu Cheikh Tidiane Diop bi muy def film ci euh, ñaawteef yi drogue def ci dëkk bi alors il n'a rien inventé comme waa infidèle rek dañu refléter de défauts très graves de la société sénégalaise waaye daf ko articuler autour d'un scénario tellement intelligent que xale yu bari bañ ko seetaanee bañ ca jógee dañuy ñëw Jamra di jooy ne dañu bëgg ku leen dimbali ñu bàyyi drogue parce qu'ils sont intoxiqués et narcodépendants voilà une série qui a atteint ses objectifs ces deux objectifs d'abord nekk miroir des défauts de la société sénégalaise ba pare nag soppi ko modifier ko éduquer ñu bari infidèle nag nee na la muy de wax miroir la ci réalité sénégalaise waaye daf ko articuler autour d'un scénario pervers ba ku ko seetaan da ngay gën a ñàkk jom ah. jigéen ju ko seetaan tam da ngay gën a ruus ci li ñuy toroxale jigéen buy dugal loxoom ci silibam génn na dégg nga benn coton bu tax très petit dreetu règle loolu xaw xaw yi si ture jigéen la mësul am dans le monde aw joué ak euh, paa bi ci oto bi waaw boobu tam ci ñàkk te jin yi la rek waaw voilà boobu ngay wax exactement donc ci gàttal daal comme que ñun duñu seetaan série Mm-hmm. dañu am commission de visionnage ñoom ñooy extraire les mm-hmm. scènes choquantes yoo xam ne dafa nekk aux antipodes de nos valeurs daal di ñu ko jox ñu ñu jël ko nag jox ko CNRA yoo mm-hmm. tax nag lettre ba ñu déposé plainte bi du këyit rek dañ ci joindre ay extrait vidéo ñoo ngi lay bu baax a baax maam Makhtar waaw kay baax na xanaa di dellu rek di leen euh, yeesalaat suñu ay ñaan euh, pour que seen euh, support en ligne bi atteindre tous ses objectifs ndax bu ñu fàtte ne que yéen sas bi tegu seen kaw dafa diis mu di yéen da ngeen war di divertir di informer waaye surtout di éduquer te wax dëgg yàlla laaj ak tontu yi ñu seq ma ak yow euh, seen taxawaay rafet na ci parce que dina tax ñu bari bu ñu ñu déggee émission bi xëy na ñu mën a jot des informations yoo xam ne dina leen mën a gindi ci lu bari incha allah kon nag yàlla ñu yàlla dàqal euh, seytaane yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi te làqal ñu Sénégal fu yàq yeggul asalaamaaleykum wa